non, cher Sarr, l'enfant de Liberté 4, l'enfant des Liberté 4, Liberté 5 et des SICAP. Et avec nous, euh, bonjour, cher. Salam salam, grand. Cher, lo bokk ah Cheikh mooy suma grand frère. Cheikh ak lamin waaw Cheikh mais Cheikh dafa war a ñëw ci affaire yi. oui Cheikh dafa waroon ñëw grand. Ah. mais xam nga Cheikh dangay da ngay waaru quoi. Cheikh maa ngi koy woo depuis ko kaay kaay kaay mu ne ma yow boo demee rek dugub su ne fa rek. mat na quoi ah, ah. oui. mbaa yaa ngi am jàmm. sant bu baax a baax naka yi sant bu wër a wër. ñu ngi lay siyaare bu wër. gis nañu maanaam morceau bi nga xam ni. moom nga way maam Saliou. Uh-huh. Euh, tey ñu choisir nga choisir def ko ndànk bañ ko def rëg rëg rëg maanaam. ndànk ndax li mu doon maam Saliou wa tax. waaw li mu doon maam Saliou wa booba Boubacar tu sais que ni Serigne Saliou dafa doon koo xam ne dafa doonoon ku teey. Mm-hmm. ay mbiram yëpp dafa teeyoon. nag mu nekkoon euh, koo xam ne nitu diine la woon. ba tax tey buñ koy rendre hommage tey. di def benn morceau pour moom dafa war a doon morceau boo xam ne warul doon morceau boo xam ne dafay rënjang rënjang rënjang doon morceau boo xam ne dafa jaxasoo moo tax ma tànn loolu nga xam ne mooy afro hmm. ma def morceau boo xam ne nii morceau bu dal la doon quoi waaw euh, Lamine euh, musique euh, ci boppam dafay am loo xam ne toujours moom lay laaj hmm. ñu gis ni Euh, jox nga ko ko mhm. liggéeyee nga ko liggéey boo xam ne am na dégg-dégg ah. euh, ku nekkoon à la réalisation ou euh, pas à la réalisation mhm. comme en télévision mais aux arrangements waaw kii nag dafa am suma benn boy bu ñuy wax Gilbert moom temps euh, yi dafa dafa dafa ubbi yëfu boppam. ni ay réglé yëfu boppam di ko def bokk naa ci ñi nga xam ne ni euh, ñoom lañ njëkk defal. Euh, njëkk a enregistré waaw enregistré. Mm-hmm. donc et clip bi nag ku ko gis di nga xam ne ni vraiment image yi bien na quoi. Mm-hmm. donc Gilbert moo fa jaar. Mm-hmm. mi ngi doon liggéey ak Papis Nia tamit Papis Nia gars yi xam nañ quoi. dëgg ah, affaire yu nice def booy bi doon liggéey ak moom aussi tamit. xam naa ni bu fa jógee def ay affaire affaire yu nice rek la mën a doon quoi. maanaam euh, ban studio moo defar son bi. waaw studio bi euh, benn studio la bu nekk euh, juste yëmbal. Mhm. attente rap ay boy la ay rappeur lañu naga. Ah. Mhm. waaw mais léegi nag dañu dañu dañu renforcer seen matériel. Mhm. di di di produire mbalax maan yeeg acoustique ñëpp daal la ñuy defal quoi. booy bas booy bas fa ne. rap bi lu muy def noonu. <laughs> rap bi dafa ubbi bunt yi. yaatal yëpp rab yi bunt mhm. yaatal ñëpp mais rab bi waxul woon loolu de. ah léegi xam nga rab bi dafa woon mbalax bi day fay. non léegi xam nga musique la wax. musique la wax. moo tax Mina maa ngi dellu si waat <laughs> alors euh, Lamine. Mm-hmm. Euh, mën nga ma wax un peu naka ngay concilier. Mm-hmm. sa vie d'artiste ak sa liggéey. Mm-hmm. Nestlé Sénégal. waaw euh, Boubacar xam nga nag loolu loolu loolu mooy affaire bi. Euh, man dama am ay artistes yoo xam ne ay ay ay copains artistes yoo xam ne man ak ñoom bu ñu débuté c' était depuis en 94. Hmm. tey ñii ñi ngi ay États-Unis hmm. ñii ñi ngi ci ay orchestre yu mag. Hmm. parce que man nag def naa super jamono. dëgg la super jamono def naa fa six ans yoo xam ne maa ngi ànd ak Omar Pène dëgg la fépp fu muy joué ci Sénégal ah. man maa doon joué première partie ak groupe boobu nga xam ne moo nekkoon Liberté 4 dëgg la donc euh, liggéey boobu noonu nga xam ne moom laay liggéey ak euh, fi nga wax léegi nii hmm. muy Nestlé Sénégal donc euh, daf may xaw a sax téye tuuti daf may xaw a téye tuuti ci li nga xam ne nii moom laa war a dox ci ci wàllu musique waaye nag maa ngi ci ne foofu aussi tamit di jéem parce que nag musique bi dafa métti grande musique bi dafa métti trop trop trop ba tax na ni aussi tamit bu fekkee nii danga koy def te boole woo ko ki leneen mhm. ah, mun nga tourner rek jàpp yuuxu te say say say loxo waaw ah, donc loolu loolu ma bàyyi ah, tegal sa loxo loolu ma bàyyi foofu musique bi boo koy def te boole woo ci leneen waaw bés day ñëw rek nga yanu say loxo rek yuuxu yuuxu yuuxu ba ñëpp dégg la nag de ba ñëpp dégg waaw xam nga yuuxu woykat moom du du yem du yem TFM day day day génn <laughs> alors Lamine dañu gis aussi nga kooku di mm-hmm. Cheikh Amar mm-hmm. Alors, à travers la vidéo, nous voyons mm -hmm. beaucoup d'images de Cheikh Amar, mm en train de parler et euh, en train de poser. Mhm. waaw Cheikh Cheikh dama gis li muy li muy def euh, ci yoonu Mouride. Mhm. ma gis ko mu doon taalibe Serigne Saliou waaye rawatina. mu am doomu doomu bàjjanam boo xam ne damay liggéey ak moom muy Mati Ndiaye. Mhm. nekk Nestlé Sénégal. bi mu gisee ma def euh, benn prestation Nestlé def benn morceau. mu ne ma da nga woy Serigne Saliou dama bëgg nga boole ci sama doomu sama doomu bàjjen. sama doomu muy Cheikh parce que moom baabakat Ndiaye mooy baayam. Mhm. Babacar Ndiaye ak Ndey Koura njaay ñoo bokk ndey ak baay. dëgg la Ndey Koura njaay moo jur Cheikh Amar. dëgg donc euh, looloo taxoon mu jox ma filiation yi ne ma nag dama bëgg lii nga boole ci Cheikh Amar woy ko ndax moom Serigne Saliou ko gën a lépp lu mu am. donc lii taxoon nag ma jël affaire bi. Ah. woo ci Cheikh Amar te ñëpp gis nañu li Cheikh Amar di liggéey ci yoonu murit ak di ko liggéeyal Serigne Saliou ma rendre ko ci hommage nag euh, def naa ci et puis dupliqué naa 2000 CD yoo xam ne yëpp single la bii nii pour Cheikh Amar dañ ko koy yóbbul wax nañ waxtaan nañu ci loolu ak Mati yi ba noppi xam naa buñ ci jógee rek Cheikh daa daa daa ñu xaar ñu ñëw indil ko CD yi incha allah waaw lii nag grand album la. album bu ñëw la. waaw album la c'est un lépp jeex na. Mhm. ci kàttanu yàlla. Mhm. fin d'année. Mhm. ñu génnee album. incha allah waaw bu neexee yàlla. ah yàgg na de da war a génne album bi de. waaw waaw ah yàgg na de. ah premier album bi la woon. 2009 yaa defoon ban annonce ok. yàgg na nous sommes kon album bi dafa war a ñëw. mooy bee nag bii bu ñëwee. Ah. bu ñëwee beneen affaire lay doon. Ah. kon kuy génnee na ko génne léegi parce que Lamine saar bu ñëwee lu mu fi fekk. Euh, mooy lu neex lu leer ak grand. <laughs> original non non non original Lamine Sarr kuy génne na nga génne léegi balaa Lamine di ñëw fay la album bee bu ko laal la tuddoon. Ah. mais bii laal leen ko. <laughs> bële bu ko laal la tuddoon waaw bee mu ne ko du ko bee drogue laa ci doon woy. waaw waaw ah, drogue laa ci doon woy yaa defoon bànn annonce. drogue bu ko laal yaa géroon affaire mais bii yoon la bëgg ñu laal. bii na ko ñëpp laal. mais lan la ñuy laal bu dul chocolat bi dina garaaw dinañ mais pain bër la. ah pain beurre la. gën ak court. mais pain beurre am la gën a court de. eh yow grand. xam nga wala ma xaar rek. xam nga dama wax. yaa yore mburu ma yor beurre maa lay di wël yaa yore gën ma yor maa lay defal amen ah, <laughs> loolu leneen lay doon grand. <laughs> Ah, à euh, de son vrai nom Lamine Sarr l'enfant de ah. Liberté 4 mm-hmm. et euh, avec nous sur le plateau de Weekend Start justement euh, Lamine restez un instant avec nous j'ai le temps de recevoir la très grande ou l'artiste Amina nous allons regarder sa vidéo et le temps de revenir avec elle le temps d'échanger dans un instant à la régie vidéo de Mina s'il vous plaît bu rap moo daan teewal mbedd bi tey mbedd bi mooy teewal rap suba kuy teewal dina rap mbedd bi musique gu dëgg di évoluer bàyyi di reculer diir et yow as asal rap ma lay kum li ci game bi ni dini la kum ñoo ngi ci mandu ñoom ñuy def lu leen neex bi ci tàndu foog ne ñooy chef xamee tuñu li ñuy dund mooy lan wax dëgg kii teewal mbedd mooy kan ñi daan kaas léegi ñooy jaay classe showbiz lañu fas public bi di ci las uh-huh. dafa doy muy grand ba ci booy li taxoon jug rap non non du lu nooy style bu nice dafa lamb jox ñu message bi ne taal bu ñu xam ci ga évoluer ñoom ñëpp ànd si yëpp gisee loo nga kay naan si bopp neen bu yegg si bopp si sant si mokk si musique évolué ñoom ñëpp ànd si lépp di zéro gaaka yi naan si bopp neen bu yegg si bopp si ku yëg fuy xasan be def chute bëri def faux rappeur yi nga gëm ak bari ay faux woote li def lee ko yàpp li ngay teg gëmoo ko tel ñu sa promotion noo ko gisee ak geli ci prostitution déguisée te di def sound sexe ego di ci wante seen down ni jaayu ci clip seen blème mooy pour dem foog ñu doon lem di ci wane ay fem jigéen day doon roy waay dem leen bay sama muraay musique écolier ñoom ñëpp ànd si lépp a giseloo ngaa tey naan si neen bu yegg si bokku si ku yëg fuy xasan si bokku si musique évolué si lépp a giseloo ngaa neen bu yegg si bokku si ku yëg jot jot na segam li ëpp tuuru dañ ko digle noo def ma muuru samay cër du fen dañ ma cër ci bii musique ku ma gis jox ma cër ku doon wër royu waay yegsi naa ko bëgg nag fow kaaj sori ma bokk musique taxul bokk fu ñuy taxaw su ngeen teewalee suuf ma teewal kaw bokk maak mi xamul fi ñuy aw na leer li ci man du ci yow sa gëm ñee sëgg mujj daw res jigéen wax dëgg yow ne ma yees nu yoo naa sal rap ma laykum fay nañ la ma laykum sa rap nu yoo naa sal rap ma laykum fay nañ la ma laykum sa rap ci ga écolier ñoom ñëpp neen bu yegg si bokk si ku yëg fuy xasan si bokk si musique Sal rap maaleykum euh, de Sovreno Mina salaamaaleykum. maaleykum salaam. mais ana Ibadu ak rap wala ana borom muraay bi ak rap. waaw moo gën Ibadu ah. ah ma ne moo gën Ibadu. doo Ibadu ah. non non da nga muur rek. waaw je me présente par gel boo xamante ne day def rap muur xaw muur cëri rafetal jëmm ji quoi. muur cër yi rafetal jëmm ji. Mhm. Euh, c'est c'est difficile de voir ça ou c'est une première pour nous. ah. Euh, c'est quoi ce choix qu'est-ce qui vous a amené dans le hip-hop. alors hip hop dafa nekk loo xamante ni euh, depuis booy ba tey. Hmm? dañoo nekk di nekk di rap ma ma nekk ci famille boo xamante ne. est-ce que danga nga muuru woon bi ngay nekk booy noonu di rap. muuru dafa mus a bokk sama famille. non dama lay laaj da ngeen nekk xale di rap est-ce que bi ngay rap instant boobu noonu nekk xale da nga muuru woon. non non muuru woo woon benn instant muuru ma woon. ok uh-huh. kañ nga muuru. Euh, ba ma muuroo ça fait maintenant euh, un an et ah un an et lan moo la yéem wala fan la influence bi jógee wala fan la prise de conscience bi jógee ba nga muuru. alors dañoo gis temps yi que euh, léegi gel yi. Euh, jigéen ñëpp lay wax de manière générale bu mm-hmm. ñëwee war a feeñ ci tele wala ñu war a def benn vidéo wala leen dañ lay imposer lii nga war a sol nii nga war a mel nii nga war a waxee comprendre nga donc on s'est dit que maintenant stop parce que musique la ñuy def ñëwuñu di wane suñu yaram li ñuy def moom la ñuy ñëw di wane pas ñun lu ñu mel wala lu ñu lu ñuy sol wala mm. ok c'est comme ça on s'est dit que pourquoi pas ñun ñu def leneen jéem a nëbb yenn partie mm-hmm. génn mm-hmm. Ah, génne lu neex nit yi mm-hmm. déglu ko par force ok à l'origine dans le hip-hop Euh, c'était ça a toujours été très sexy dans le hop Mm a toujours été dans le hip-hop R&B très sexy. Mhm. Est-ce que vous pensez que vous pouvez arrêter cette vague ou vous participez tout simplement à conscientiser ok on va participer à conscientiser je veux dire. parce uh-huh. que euh, lenn loo xamante ne mu ngi ñëw mënoo ñëw stoppé ko carrément. da ñëw di ci bay sa waar ci benn côté par exemple bu ñëpp di jaar côté gauche nga ne yow man droite lay jaar. Mhm. ku ma mën a topp si droite mu topp ma sinon ñeneen ñi jaar gauche ñu jaar gauche mais man droite lay jaar. Mhm. Euh, à travers son vous parlez de prostitution déguisée. Mhm. vous vous adressez à la société ou une frange du hip-hop. je euh, je m'adresse à Oufi. jigéen ñi en général jigéen ñi. jigéen ñi en ñi nga xamante ne dañuy nekk def musique ak ñi nga xamante ne dañ leen di ñëw. jël leen comme ay polieuse ñoo nekk ci clip yi. di polier clip yi. alors euh, kon yow gel yi ngay gis ñu génnee seen cër nekk di fecc ci vidéo yi ay polieuse nga leen tuddee. polieuse. lu ñuy polier image yi. image yi. mais ñu naan da tàng de. <laughs> non mais ay polieuse lañ. ay polieuse lañ. Euh, tu mâches pas tes mots Ah, lu am rek laa nekk di wax parce que clip par exemple ku góor kii nii buy def clip am uh-huh. pas besoin dem foofu noonu di fecc di wane sama yaram uh-huh. na def message dem romb def na clip bu nice te loolu amu ci voilà uh-huh. moo tax te neex na xam nga déglu nañ ko on n'a pas besoin de ça quoi quand on n'a pas besoin justement de génne euh, pour def vidéo mais vous avez le constat c'est que bëri na ci télé en fait en pagaille en pagaille en pagaille ah et yow en tant que yow euh, sa problème mooy pourquoi góor yi di leen utiliser comme ça. waaw dañuy utiliser. ah dañuy utiliser bu ñu waxee pour dire vrai dañuy utiliser. Hmm. donc on dit mais c'est payant aussi c'est pas gratuit ah. voilà jigéen ñooñu dañ leen di fay ah. c'est payant donc c'est pas gratuit c'est pas de l'utilisation on te paye tu viens tu poses dans la vidéo. tu danses mais est-ce que est-ce que jar na ko li ñu lay fay est-ce que jar na ko. ba ko bu buñ la fayee benn kebab nga ci jënd wala benn bouteille boisson après nga jibbi seen kër. ba yow branché nga day kebab ngay lekk. ñu mbaxal rek <laughs> ba yow branché nga dégg naa foo dëkk. Euh, benn mm, dëxin nga ci jënd kon. waaw yow foo dëkk. parcelle. unité. 12 ah 12. Euh, qui a fait que yow nga nekk hardcore à ce point-là t'es t'es t'es vraiment dur quoi. dama juddu fekk samay grands frères nekk ñoo xamante ne dañoo dëgër këcc. ma topp seen tànk nekk benn jigéen mais fii kan la fi grand frère am nooy. non man sama bos laa xam ah. <laughs> laa xam non mais Mina. samay grand frère am nooy samay grand frère laa xam. aussi ak yow fekk ñu ñu ñu wan ma yoon bi. xam nga lu nekk ku nekk ci li nga màgg ci ngay ci ngay yegg. loo xamante ne ba nga nekk xale ba tey moom ngay gis. boo màggee par force ci ngay jaar. Mhm. Euh, loolu moo def ci yow. Euh, tey nii nga nii nga duré nii bii tube mooy ban. Sal Rap Malekum. Sal Rap Malekum. Mm-hmm. pourquoi Sal Rap Malekum. Sal Rap Malekum comme Sal du salté. Mm-hmm. rab bi. Mm-hmm. maa ngi lay dindi Sal Rap Malekum. donc c'est pas tout le monde. non non ñëpp ñi nga xamante ne euh, ñoo ngi def rab boo xamante ne mooy loolu. ñoo ngi ah. foog ne ñoo ngi def rap mën naa bokk ci Sal Rap Malekum mais ñi nga xamante ne ñoo ngi def rab boo xamante ne du rap. Uh-huh. du hip hop la ñuy def. Uh-huh. nuyu naa leen ñoom ñëpp. Mm. ba su ma amoon rajo dama lay dama lay génnee ci kii bi jël la tef la animatrice xam nga jox la tranche hip hop ngay def ay ITV. communication lay def. communication lay def mi ngi ah, noonu ma gis rek ba wax ko lool la <laughs> barki Aline Mbaye Nder. communication lay def communication ngay def. Uh-huh. donc euh, tu vois euh, tu devrais faire des émissions d'interview hip hop. ñaanal ma rek ma pare. nga pare benn année moom dese. benn année moom dese fan ngay jàngee. N Sup Afrique. N Sup Afrique alors euh, aujourd'hui naka ngay apprécier maanaam la maanaam euh, hip hop bi à part lii la ci déranger nii est-ce que ça avance pour vous. Uh -huh. hip hop moom boo xoolee day avancé parce que am na benn hip hopeur Balla bu doon wax moom temps yàggee dañuy ñëw rek taxaw ci studio bi amul arrêté defaat dugalaat comme ñun ni ñuy def ngay ñëw rek tàllal bu la bu la rëccee c'est fini perte nga sa xaalis. Ah. mais xam nga loolu amatul léegi. donc am na évolution. mais juste nañu jéem indi fond ak forme. Mhm. cest dire nañu indi lu dëgër ci tex yi. Mhm. indi forme bu nice. Mhm. ñu def ko musique bu nice. est-ce que rap fi mu nekkoon doon teewal mbedd mi ma nga fa ba tey on the street. démb rap moo daan teewal mbedd bi. Ah. tey mbedd bi mooy teewal rap. Ah. suba kuy teewal dina rap mbedd bi. dellu si. démb rap moo daan teewal mbedd bi. tey mbedd bi mooy teewal rab. Uh-huh. suba kuy teewal dina rab mbedd bi. suba kuy teewal dina rab mbedd bi. Mm-hmm. Euh, mais gars yi yàgg nañoo rab mbedd mi de. Mm-hmm. gars mm-hmm. parce que li ñuy rab yëpp ci mbedd mi la jógee. démb rab moom moo daan teewal mbedd bi sax démb rab bi moom moo nekkoon fii nii di wane li les mots. Uh-huh. xam nga. Uh-huh. léegi instant bi nii. mbedd bees ko nekk moom mooy tey waral bi di wax moo wam di yuuxu yaay yooyu maa ngi dee wax leen si man comprendre nga ñëpp nekk ñu fi di wax lu metti parce que nekku ñëpp ñooy dund lu metti mais juste teewalal ñeneen ñi teewal ñeneen parce que musique ngay def teewalal ñëpp ñi dund lu metti ñi dund lu neex ñi mbedd bi parce que nekkul lu neex moo nekk ci mbedd bi mbedd bi am na lu naay su nekk ci mbedd bi mais benn instant rab bi dafay am ñoo xam ne dañuy blow am ñoo xam ne dañuy xaar am ñoo xam ni dañuy dañu nekk dans le milieu am ñoo xam ne dañu nekk dans dans la politique carrément ah noo koy apprécier yow foo bokk man maa ngi ci def musique maa ngi ci ñuy def musique mhm. mais rab bi am na politique waa gis am na ñuy politique am na ñuy politique am na ñuy politique rab bi am na ñoo xam ne dañuy blow am na ñuy blow mhm. ah yow yaa ngi fan ci musique musique musique mhm. musique only musique rek te spécial et tu contrôles c'est parce que tu fais de la com. <laughs> en tout cas, j'apprécie à sa juste valeur. Alors, euh, ça, c'est un single hein? Mm-hmm. Juste ah, un single. Juste un single. Et euh, le next step, c'est quoi instant bi ñoo ngi nekk di job ak waa Mbarak Pro ak ñoo ngi waaj dem Rock Team Music. Mm-hmm. alors euh, ñoo ngi waajale affaire yu bëri. Mm-hmm. yu bëri ñoo ngi ñëw daal. ok mhm. ñu xaar la ñu la. waaw ñoo ngi séntu leen ma maa ngi ah, ñëw. Yessaye euh, bon courage. ah merci très fière et très originale. et très content euh, euh, merci beaucoup Lamine. Ah. maa ngi kontaan rek grand. Ah, maa ngi am man kontaan naa bu baax ci yow. ñoo far bëggoon rek balaa mooy dem. Mm. remercier ki nga xam ne mooy Mati Ndiaye. Mm-hmm. di ko wax nag sama doomu ndey dafi taxaw léegi Yves Nia. Mm-hmm. Mati. waxal père Babacar Ndiaye. ak Jeylaane hmm. ah clando yi oto yi waaw oto yi bëgg naa ci oto yi ah Mati sas naa la ko Boubacar ñun artiste dañu war a dugg oto Boubacar ah te bàyyi clando yi ak Njaga Njaay dañu war a dugg ay oto yu baax bu ñu ñëwee taxaw sol lu baax gars yi kontaan du loolu buba di ko sas Pa Babacar Ndiaye Mati Ndiaye ak Jeylaane non Cheikh moom gisee guñu xam naa ni Cheikh moom bu ñu gisee suq sa bënn sañ ba réer waaw di tàggatoo nag di tàggu suma yaay euh, ca mbuur Géej di remercier Cheikhou Sarr surtout nag Bousso maam Diarra Bousso moom coow li coow li moom la. gara dinaa ñëw dinaa ñëw kër ga. Ah, dañuy waxtaan incha allah yow foog ñu waxtaan parce que nag man goro goro laa. amul benn problème waaw loolu sama mbokk yi sama goro yi ca Gambie. Ah, Cheikhou Sarr ñaaña Sow. dëgg la ak euh, waa Gambie ñëpp daal. rafet na sama jabar merci beaucoup Lamine. Nina vous voudrez remercier euh, euh, remercie mes parents. parce que jàppale nañu ma bu baax sama famille. di remercier aussi sama xarit yi nga xamante ne ñoom laa àndal Sira Mapi ak Mitou. Hmm. ñoom Sira Mapi Mitu mais sa copine yi dañoo bizarre seen tur yi Sira Mapi Mitu. waaw Sira Mapi Mitu musique la rime la de rime la de Sira Mapi Mitu in the flow in the game. voilà <laughs> ok di remercier aussi waa Mbarak Pro. ñoom jàppale nañ ma bu baax parce que lépp su ma mënee taxaw fii nii tey ñoom ñoo tax. Hmm. ak euh, maam Samba yàgg. Hmm. nga xamante ne moom aussi euh, jàpp na ci affaire bu baax ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ci jàpp. dëgg la Oulimata gis naa euh, li nga ma jox merci. sëñ Tuubaa jaajëf merci beaucoup en tout cas Lamine m'a tué ah gars yi euh, artistes yi dañu war am oto c'est normal c' est normal artistes yi dañu war oto clando yi dafa metti taxi yi dafa oh, ah? oto. Lamine oto ah oto rek Lamine. waaw. alors s'il vous plaît euh, nous allons aller à Kaolack et puis le temps de revenir tout à l'heure merci Mina merci Lamine et puis tout à l'heure nous serons en compagnie de Carlou après bien sûr nos échanges avec Bourguevel et nos échanges avec Madame Zahra en provenance de Kaolack c'est maintenant.